kan Cheikh Dieng nekk de la banlieue. oui ok ok. parce que nag. banlieue ñun dañoo yàgg di fal tey dafa jot banlieue fal boppam. parce que Macky Sall bu nekkee président en grande partie euh, banlieue ko fal Abdoulaye Wade bu nekkee bu nekkee président en grande partie banlieue moo ko fal. dëgg dëgg la. Mhm. day fay bopp. Mhm. Cheikh Dieng nekk doomu Kajoor ak Bawol. def naa ma dem naa fa delluwaat naa fa delluwaat naa fa. Mm-hmm. parce que nag tey dafa jot doomu Kajoor doomu Bawol gis ni tey seen doom taxaw na nekk président Cheikh Dieng nekk la candidat du monde rural dégg nga li mu fa wax li lépp. fépp taw mm-hmm. fex ci wàllu développement. Mm-hmm. de l' agriculture et développement élevage. développement euh, de la pisciculture développement loolu kaw gi la désenclavement kaw gi la c' est pour cent de la population de ce pays. kon ma jàpp ni sénégalais deux mille vingt quatre si ñaari fànn la ñuy fale seen président de la république. benn dañuy xool candidat bi mooy kan lan mooy jaar jaaram. fan ndax loxoom set na wala wala ndax loxoom ndax loxoom set. mais mhm. la personnalité de la candidat. du du du du candidat est-ce que kii am na xam-xam est-ce que jàng na fu mu jaar jaar est que am na expérience ci politique am na expérience ci état. mais may présenté nekkuma fon du ma ci dugg ci sama cursus xañ na mën naa gudd mhm. wante nag ah euh, Cheikh Dieng wax naa ko sànq wax naa ko sànq am na cursus quand même bonne coalition nga nar bu dee ci wàllu jàng bu dee ci wàllu euh, politique politique gongo d'accord ban kan ban coalition nga nar a àndal deuxième élément bi nekk boo génnee boo génnee personnalité bi nekk les programmes xam mhm. nga programme man ma jàpp ni programme bi docteur Cheikh Dieng bind programme bi xam nga dama ciy jukki lu tuuti rek mi ngi dañ ko dañ ñu dañ koo ñeme ba def ko ci internet. ok waaw gis nañ ko ci net bi waaw. www point fépp tawféex point sn. Hmm, c'est la page waaw gis nañ ko ci boo ci duggee rek dañ koy gis. sur la pa euh, hmm. donc boo demee si internet da nga fay fekk programme. fépp tawféex ñu ne ko. Hmm. mais lu li mu wax lépp nag lu ci nekk dañoo détaillé nan lañ koy defee. du programme de pages du programme une demi page boo xam ni. Mm-hmm. ñoo xam dañuy toog rek nit ki non non non dañoo jël le temps réfléchir sur le diagnostic de l'économie de la société sénégalaise pour proposer un. Mm-hmm. programme un programme. d'accord mm-hmm. jàpp naa ne man yooyu ñaari fànn. donc euh, la sénégalais yi di tànnee seen président bi ñuy fal en 2024 parce que historiquement et pour la première fois. au Sénégal nekkuñu dans une perspective de folie. oui ah, donc ah, on ne sanctionne pa on pour la première fois on va on va élire. Macky Sall merci beaucoup docteur ko folli. di nga ànd ak coalition wala. dañuy fal su sunu sunu sunu candidature la coalition Tawfekh 2024 moom moo koy porté.